Wade xalaat bu mu jubal keroog ci ndajeem PDS mi jëm ci élection yu nu ñor di di ay bu ko ñor la bu mu togg ba noppi observateur xëy xamal ñu ko yéene kaay bi ne mooy plan secret bu bees bu Abdoulaye Wade ndax nag ñaari dank fanaanal la yoroon benn ba mooy def élection ci ab bi nu jàpp di 26 février ba ca des mooy ñoddi ko ci lu gën a teel ñaareelu dank ba nag la génne keroog observateur ne Abdoulaye Wade pare na lépp nag ndax xam na ni doole ja jeex na pexe jeex faw kon mu muusanteeg ñamu janool ngir jàll ca foofee nag yéene kaay bu groupe Futurs média jàpp na ne de Gaulle la cay toppandoor ndax moom njiital France ba woon ci ëllëgu grève 1968 ba daa noppi fan xaar ba 14 mu dajale mbooloo ci Champs-Élysées ngir ak njàppale xamal leen ne demul tey demul ëllëg noonee la Abdoulaye doxalee fas yéene amal nag 23 juillet méga meeting wàllu élection anticipée yooyee nag Abdoulaye Wade xalaat yéene kaay bu groupe Futurs Médias ne France ak njiit la Nicolas Sarkozy àndunu ca la bëgg mooy ak yëgoo am ci arène politique bu Sénégal ab ak anami wote yi élection anticipée yooyu nag Benno Siggil Sénégal ànd na ca waaye ñu ne na fekk moom Abdoulaye Wade mu tekki ba noppi ndombal tànkam taala si la ci wàllu fajar yéenekaay ne Abdoulaye Wade daal jeexal na moom Abdoulaye Wade nag ci kàddoom keroog 14 juillet wax na fa nguur gu mu noppee bokk ak waa opposition bi ubbi leeni buntam na ko Abdou Diouf daan ko defee jëmee ci moom waaye foofee Sud Quotidien nee na ñoom lankal nanu ko lu ni mel ndax dañuy bañ mbaxus bi lalu ci tooke di posen yéenekaay bi di enquête xëyee moom méga meeting waajal 23 juillet yéenekaay bi ne benn milliard dana ci dem lépp suul nërmeel gi leen ndax nag PDS juróomi téeméeri junniy nit la bëgg a dajale ci VDN bi di militant yu nu fas yéene jële fu ne ci Sénégal boobee meeting nag ke ngànk amal géeg waajal gi enquête ne Souleymane Ndéné Ndiaye la ak Papa Diop Ousmane Tanor Dieng secrétaire général bu parti socialiste moom la yéenekaay bi di le matin fësale nataalam yéenekaay bi di waa PS la nu bëgg mooy askan wi gën a yaatal gën a taral ñaxtoog fippu gi jëmee ci Abdoulaye Wade Ousmane Tanor Dieng ci màggal gi tey ëllëg ne naam xaarul woon lu bari ci kàddu yi Abdoulaye Wade waaye dafa mel ni moom Abdoulaye Wade la askan wi wane keroog nekk fippu ak bëgg-bëgg 23 juin tekkiwu ko xamu ko Ousmane Tanor Dieng ne Abdoulaye Wade moo wàññi nag ngëm gi askan wi am ci moom ndax moo ni wax waxeet ca loolee day tekki ne lu mu waxati neen la ca nag lu garaaw la ci président ndax président dafa war a sàmmi kàddoom ci biir état beeg penc mi Ousmane Tanor Dieng jàpp ne président mooy jëmmi république di jëmmi kon a sàmm la ci li tax étudiants yi rayante seen biir lu ñeel amical yi ndeke yëf yi li wolof naan mag muy naan ndox mu tàng suukar saa tax yëf yi daa ami ngëneel wal faj ne xaalis ca la ay avantage na ko noonu position politique seeni rak ñoom étudiants yi élèves yi def BFM ren le soleil xëy xamal ñu ne examen BFM googee di juróom ñaar fukk ak juróom-ñeent ci weer wi du juillet lay doon gannaawaati ëllëg 31 nag lamb ju mag Mouhamed Ndao Tyson Balla Gaye a jamono it mu jàppee ko noonee rek wax ji Balla gay nag de dëkkee jëmee ci moom mu ne dara day def communication rek Tyson xamle ko ci Walfadjri yéenekaay ci Walfu Grand Place ba tey moom Mouhamed Ndao Tyson ne bu keroogee 31 juillet Balla Gaye dina am ab dëgg ci kanamam Tyson di xalaat nag xaat na muy feetoo ndam gi ci kaw Kaolack ak Pikine mu ngi ci sunu lamb sunu lamb googee fësale ñi am ndam ba noppi nag démb Ama Baldé la ci kanamu fëgg la waaye Sa Thiès kanamu Boy Sey di woon ci kaw drapeau bi promoteur bi di Aziz Ndiaye baaxee démb sunuy naatangoo